producteur bu nekk ci kaw rek ñaan nañ la nga wàcc ñoom présenté wu si. ah loolu moo nekk tey de. ah waaw na ngeen commencé fii ci géew bi. yàlla dara de naa la wax benn affaire na aju. naa la wax benn affaire ma ne kii de. waaye loolu ba njëkk la waaye loolu neex na de. loolu moom maa loolu maa jox. non Issa Pouye man maa ko jox avance sax. waaw man maa jox Issa Pouye avance. bala nga koo xam rek. maa ko jox avance Issa avance. bu ñu yoree xaalis bu ñu yoree nag du ma du ma gis bu ñu yore bu ma ci woo boîte vocale. yéen <laughs> man kay heure ma leen wooyee mu ñu sonné rek ma ne yoratuñu. <laughs> mais Ama loolu mën naa nekk. Ah? Ah, la tooñkat la la. Ama ngi fi depuis quatre heures. waaw tàntaatoor danga mën sa métier boo wax lu naaw doo ko def te ku fi te doo wax baax xoolal seen dara non Nande Fall kii combat la combat bu rëy a rëy. bu mag ko xel la. koy ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla la ah? sama doom la dégg sama waay sax. waaw moom moom lu ma tudd ak moom bu tuwaat ko koy ñaanal yàlla ko. moom moom day mel ni sama sama jërbaat yooyu sama doom yi parce que man moom fanaan nañ lu mat cinq ans Papa Boy Djiné wi ngay gis. waaw cinq sama kër kay. wóor na yàlla. waaw histoire la moom moom moom dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal ndam. soo moom mi bëree soo ko balle loolu laa wax ne moom dafa dara su ma doon gën a yéene ndam sax moom laa gën a yéene ndam sama deret la waaye moom dafa bàyyi léppam ñëwoon si man waaw dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla suturaal tey tey soxla nañ ndam ko yàlla may ndam te ba léegi. ça se ma demoon na loolu ba nu mu daan ba nu mu demee prison. yow mun naa la papa mu doon ko yóbbul papa. yow yaa ma dëkk yóbbu ci. avocat ak lépp. lii séeréer dëkk dëkk Géejawaay. moo tax papa boo jëlee. waaw ñu gànnaay Mbour. loolu dañ ko nangu. keroog bi ñu ko jógee. waaw parce que Serigne Babou Kassi. directement il a tuwaawam. non cat. te yooyu yëpp bëri kat daa mun bëri xeex. waaye cat mun bëri ay sa xol. yàlla ko yàlla defal jàmm. dama ni kii la toog naa yi mu naa damaa dem ba xew sama a toog. dañ koy ñaanal ko yàlla suturaal. xam nga maa ngi nii kuy lépp lu wax laaju ma kenn kenn laa laaju. yaa toog ma toog Pamary Mbir toog. barke nga ni ko teralal ma kii keroog ba may ñibbi damaa ñëw sama mbuus laa jël dem def directement Tiwaawan man maa ngi doon Kër Saala dëkk bu ñuy wax Kër Saala Fatick foofu la kenn du du bilaay Karbala doomu Pikine Aïcha mbëri Aïcha Aïcha kaay bu ñu Karbala non champion la non champion ma wa jaay champion la mais Pikine Pikine dafa bëri ay daanaan xale. non champion la Baye Fall la. wax dëgg yàlla ku baax la. Ah. papaam na doon Baye Fall doon ku baax a baax a baax. waaw doon champion tamit fii biir Pikine papaam am na lu mu liggéey biir Pikine bu baax. Ah. mu doon Baye Fall doon ku baax. mu doon mu doon ku yaru yaayam doon ku baax ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla sutura yàlla defal ko jàmm. Pikine tamit am na ñëpp tudd Bébé Balla yàgg musoon nañ fi wax. waaw waaw champion Pikine dafa bëri ay ay tas yaakaar ah, ay Basta numéro 2 xam na yi ay Ziza Jara 2 bëri na champion de ay Boy Ndiaga Ndiaga 2 xam na ay Ambroise gars yi bëri na waaw waaw waaw champion bëri na xam na waaw waaw waaw waaw waaw ñun moom mooy loolu am suñu ginnaaw chaque jour ay sa juxal lay dal waaw parce booy ñeme nañu entraînement te bëgg na lu ñuy def dof la kooku dof bu ñuul la non dof la dof bu ñuul la kooku dof la kooku moomin la <laughs> ah pare pare. le 5 août le 5 août dafa day suñu tool yi. le sam dégg dégg loxo yi mu ñaanal ñu moom suñu papa la. waaw wax dëgg yàlla loolu dañ si kontaan bu baax a baax. sa yoon tamit fête sa doom def loolu. xam nga boo ñaaw ñu ko si encouragé bu baax a baax

combat yu neex taxaw na avant. combat yu neex a neex kay. combat yu neex wax dëgg yàlla mais njëriñ bi adduna bi. tanda mooy bu adduna bi di xaar mais am ama ama ama yaa koy déglu. loolu noo ko naan de. ama yaa koy déglu. maa sa ginnaaw. ama yaa koy déglu. waaw adduna bi bu ñuy xaar. ah arène nationale la ñuy xaar. arène nationale Ama Baldé Modou Lô waaw loolu njam ndéem la mais yàlla baax na yàlla yàlla mootali. ba léegi lan la. ah loo bëgg na bëgg naa mais mbir suñu la. ah ñoo ñoo si daal. Malo Saaye. Saaye ma ne fii laa koy laal ba affaire yi fii. fii moo gën a jege kaw tribune bi ma def. daa dugg daa dugg si yaay jël ndaare. nga daan fa tafatin daan fa guy daan fa sas. ah. ah Ama mais day Ama. tournoi DT ñu ne yaa jël daare moom lay fàttali. ah mais sant yàlla rek gars yi moom moom làmb moom. day dégg lu nekk mais sant yàlla la rek. Mhm. mais xanaa Eumeu Sène da nga moom. non Eumeu laa koy joxee kele tamit Eumeu Sène jox kele yi. mais mais rek laa ko mën a def. waaye waaye ay conseil laa moom. Ah. ah mais mais tamit mais tamit laa war a wax Eumeu rek. moom mooy mooy mooy àdduna. Mhm. mais nga jël bu mbër mi nga xam ah, la rek dañ see refa doon jootu rek maa ñaan ñoo dem ñoo nga ñaan yàlla ko yàlla defal jàmm lu ko jàmm mu bàyyi ko comprendre ba mu mën a delluwaat si affaire yi waaw soxla nañ ko ñun ñëpp soxla nañ ko parce que day taaral làmb te champion la waaw loolu moom wax dañ koy ñaan yàlla loolu yàlla lañ koy dëggaat ñaan ko bëree tuuti dugg Léopold Senghor bokk na si mbër yi gën a feesal Léopold Senghor en 2018 le 4 février 2018 lay saan ñu bëre fa ak Papa Sow Papa Sow moom loo andi ko Papa Sow góor a soog andi ko Papa Sow franc andi ko vazał. ah mais suñu moom suñu suñu doyen la suñu cai cai cai Malo. Gaay gaay gaay. ah. 5 août incha moom sama sargal la. kii doomu Pikine la. kii moom. kii man maa si xam dara parce que dañuy waxtaan maak moom. doomu Pikine la nit nag bu mu ñàkk dara waaye kii kenn ëppale wu ko Pikine kenn gënu kaa boo gisee nag nit di waxee parce que ñun dañuy toog di dégg boo déggee mu waxee foofu keroog mooy maanaam par exemple dañuy dégg sax moom mooy mel ni man a moom ay murid lañ di warante sëñ Touba sëñ Touba amul morom bañ koy warante man su ma gisee murid bi warante sëñ Touba damay am lu comprendre moom tam bu déggee tey bu ñu déggee dara del waa Pikine moom mooy dégg écho man ma koy dégg daf ñuy métti moom foofu la waxee ne ñun ay drapeau la ay kii am na loo xam ne waru kaa taasal loolu doog la waa kii doomu Pikine la champion la. loolu la demee xam naa si dara. moom moo baax di wax rek mais le 5 incha allah loolu Pikine géppee génn parce que moom Pikine bi mu ko waree sargal du tey à chaque fois Pikine toll ci benn moment moom. moom mooy jug porte drapeau Pikine doon góor doon champion doon koo non ba pare waxuma la loolu sax doon champion doon koo xamante dafay taxaw doomu Pikine yi amul benn booy Pikine buy bëree te moom du la ma xam ko aussi xam ni mu mel ci Pikine dafa bëgg Pikine Pikine da koo jaral lu ne kon la cinq Pikine sargal leen ama ñun ngeen sargal man maa koy yëngal sargal daa yëngal tuuti Basra Basra Basra Basra jërëjëf ok jërëjëf Ibrahima kaay la ñu kaay taxaw yi dala tey kooku yi. VIP yi bëreetuñu leen nekk na waa làmb combat Ama Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène yàqu à la dernière minute combat Gris Bordeaux Ama Baldé. du faaw yow la ñu xaar. lan la lay def Ama. allo. du faaw dafa doy jugee. nga leen nga taxaw. waaw dama la yàlla yàlla ma yàlla sotal loolu. loolu laa neex. loolu njëriñam moom tabaatin kii lañ a dugal ak Eumeu Sène. jërëjëf. si tabaatin Eumeu Sène lañ a dugal. loolu ngeen naa bëri rek. naa loolu la waaw VIP yi bëri wuñu ren loolu nan ko jàngatee les VIP comme quoi. am na am